waa gars yi yéen ñu doon xaar dogal bi ñëw na ñi nga xam ne ñooy kaaf fekk nañ ay daan ci arbitre bi nga xam ne moo doon arbitre mag Sénégal ak Côte d'Ivoire yëmuñu ci moom sax ak ñi nekkoon ci VAR bi maanaam bépp arbitre boo xam ne bokkoon nga ci ñu doon arbitre ci mag Sénégal ak Côte d'Ivoire nga nekk ci VAR bi ak arbitre central bi teg nañ ci ñoom ay daan ñu wax leen daan yi mais laataa loolu dañu wax yéen ñuy gan ci bile page yi ngeen abonné te ngeen bës li nga xam ne mooy cloche de notification bi pour ngeen di am suñ ay vidéo à temps fii ci Rmo Sport loolu ngeen ñu mën a doolele ba ñu atteindre li nga xam ne mooy suñu objectif sama gars yi kaaf teg na ay daan ci arbitre arbitre mag ci Sénégal ak Côte d'Ivoire daan yi nag maanaam mooy arbitre bi duutul arbitre da ci kaan bi maanaam éliminé nañ ko yëmuñu ci moom sax xëy maanaam ñi bokkoon ci VAR bi yëpp nekk ay dañ leen a éliminé ci li xam ne mooy coupe d'Afrique bi maanaam bokkutuñ ci arbitre yi nga xam ne dañ compte ak ñoom wala dañ arbitré wala ñu ngi leen di lijjanti fekkee nag loolu am na tamit ndax studio bari dugg na ay studio mag yu mel na footgal sen ak yeneen sud Afrique yu mag a mag léegi lool su amee rek benn jéego la boo xam ne xëy na ëllëg beneen arbitre du ñëwee def lu ñuy mel kon kaaf ñu leen di félicité bu baax ci décision boobu ngeen jël of Anthony.